jërë ngeen jëf mbokki wasaare làmb wasaare TV ñoo ngi leen di nuyu di leen ziar di leen bëgg bu baax a baax di leen jox seen wàccuwaay di leen euh, nuyu di leen jaajëfal bu baax a baax tey nag bu ñu gisee toogaay bu jekk bi xam ne émission mag bi commencé na su mu émission mag na xel yi dem ci jaamaarloo su mu nee jaamaarloo xel yi dem ci mbër yi su mu nee jaamaarloo xel yi dem ci supporter yi su ma nee jaamaarloo xel yi dem ci amateuru làmb yi ba tax na nag tey dañ fay dajale ay xale yoo xamante ni nii dañuy ànd ak mbër waaw dafa nekk combat boo xam ne combat espoir la su mu nekk combat espoir la mooy combat boo xam ne xale yi dañoo war a déclenché lamb ji gaa tijjeegul mais combat bi dafa nekk combat boo xam ne combat bu neex la combat boo xam ne combat bu na bay coow la mu ci diggante teq jël ak réparé di bàyyi nag ñi nga xamante ni ñoo fi teewoo tey mbay bàyyi la ñu nuyu Bébé Issa nuyu naa la. waaw asalaamaaleykum ñu ngi lay fay di siyaar ñëpp di bëggee ñëpp xam nga di ñaanal ñëpp jàmm di ñaan jàmm si réew mi di nuyu waa Waalo. waa Casamance waa Kees waa Tivaouane waa Parcelles bu ba 26 ñu ngi leen di bëgg yéen ñëpp du nuyu nag yéen ñi xam ne yéen yéen ñu dalal fii nii. waaw di leen ñaanal xam nga fi ngeen bëgg a yegg yal na leen suñu borom yóbbu mais dafa mel ni da nga sedd parce que teex jël mi la fi yabal teex moom ku ko xam na xam na seddul mais da ngaa ñëw tey xaw sedd lan la. non sedduñu sax. dañuy ah. nuyoo rek. Ah, da ngay nuyoo. waaw ba ah. ñëw si question yi. baax na di nuyu tamit. moo la tudd moo moo maa ngi lay nuyu bàyyi la nga nuyoo ak àdduna ak ñu lay seetaan. waaw ah, auzu billaahi mina seytaani rajiim ak ginnaaw bañ sant yàlla juru si yeneen bi ñu ngi sant suñu ñaari waajur ah di leen nuyu bu baax di leen jox seen waati waaye di ñaan suñu réew Sénégal jàmm yàgg fi ah li dal suñu mbokk léegi ñu leen di ñaanal waaw ñu am tànn ak wér suñu borom saafara ko ci daraja Seydina Muhammad wax nga dëgg feebar la boo xamante ni feebar bu yéeme la waaye ñoo ngi ñaan. Ah, yàlla mi leen ko teg wala boog li leen dal yàlla na dañ ak jàmm ah ñu continuer ci leneen euh, Bébé Samb lan moo leen dugal ci réparé. réparé waaw lu ñu dugal ci moom mooy làmb rek comme yeneen làmb yi ah. parce que réparé moom boo ko woon suñu choix wax dëgg fu ñu doon yootu gën gënoon na kawe ko moom sax mais bañ a def ana balance xam na moo tax ñu jël ko ak tamit promoteur bu tëgg làmb ji am na lu mu séq ak ñun loolu la waral mu proposer ñu ko ñu jël ko quoi. mais du palmarès. du palmarès xam ngeen xale bi ngeen jël. Rebar waaw xam nañ ko rek comme ni ñu xamee yeneen mbëri rek parce que moom mbër lay wuyoo ñun mbër la ñuy wuyoo waaw loolu la rek moom moo ñu xamul au contraire. ah xam naa ne xam naa ci dara xam nga réparé maa ngi dégg mu naan teex mag la affaire yooyu noonu mais comprendre lul réparé tollu fii teex si bëri fii barki Seydina Mouhamed laa la wax du wax ni comme kii ni micro bi nii de. mais réparé téq tollu ko fii si bëri laa la wax billaay wallaay. moo yaay dégg sa ah <laughs> sa waay li mu xam rek la wax mais damay dégg mag ñi naan ku si mel ni Max Mbargane. Mhm. mais mbër du préparé day pare. yaakaar naa gis ngeen vidéo yi. Mhm. mbëram dafa tegle ñëw signature di tegle. réparé xale la. non est-ce que nekkul nekkul fi mu jógee moo xawoon a sedd tuuti. moo doon sol non gisaguñ fi seddaay <laughs> kon su ma déggee daal ci wax ji maanaam téq parewul mu sol tegle yu noonu la fa demee yow doo ngaaxa. <laughs> Issa yaa ngi dégg sa waay. Eh, xam nga téq musul bëreeg adversaire boo xamante ne dañuy naan téq kii bu ko jàppee tey da koy rey. au naan kii bu jàppee téq tey da koy rey ñëw gis. man li ma gën a neex si moom saa yu bëre loxo dar gémmiñ ah mais est-ce que làmb ji dina demee noonu. non bii mooy gën a yomb ci yeneen combat yi dégg lu ma la. est xam ne kii ci defet la jógee. non moom mhm. maanaam niveau am yeggagul si pour yeggagul pour mu bëre téq dafa des lu bari. dafa teel. dafa des lu bari. maar la sax bu doon bëre téq jël barki Alxuraan nga signal téq kaani téq ay gar gargambosa ay jàpp di leen daan ay Angleterre ay garga ñoo ñooñu nga xamante ne kat mën a dàq bëre parcelle ay Ramdaan. waaw mais est-ce que li ci loolu moo ngi ci ma moo moo ngi ci moo ngi ci réparé tamit. Hmm, dégg nga réparé amul doole. li ko saa yi wax rek état kaw man la yor xam nga boo jógee si defet moom man la souvent si yooyu ngay jàpp koos yi toog noonu gars yi naa la waa mbër yaa ngi ci ngay xaawe ka yaari yaa ngi nax sa bopp gisoo li ko dal contre Yankaw comprendre sax affaire bi noonu da ngay liggéey mais du ay volume Yankaw da Yankaw dafa dalanteeg moom saa waay jébalu. Yankaw yow bëre si biir bëre mu daanu si biir bëre. Yankaw bëre wu leen sax gaynde de. bëre laalante wu leen sax. combat benn leeto ñu ngi fa. ñu ñoo bëre ñu ñoo bëre après ngeen bëre. ñu réparé bu ñu tardé gisam. ngeen xam nga la ngeen def si lamb du jour boobu xam nga la ngeen fa def tous tous ngeen fa def jeex na pare ngeen ci combat loolu ngeen fa am te teeq daa fa bere lamb ji rek sa ko ménage sa ko saale waale yàlla waale daan jéem ji lamb ambiance la te réparé boo xoolee ay lambam da koy ambiance loolu leen nax nag gis ngeen ni mu demee loolu leen nax nag lamb du ambiance boo nee boo nee réparé nii nga nii du tudd lamb du ambiance Marley mooy magam génne ku yaroo si keppaaru Marley ak Papa Thiam de Gabar Singh gis nga lamb ay bu ma di la entraîné kon yaakaar naa du tiit ay téq jël te bu boobaa di ngeen xam ne parcelle parcelle caab bi ñun ñoo ko yor. xam ngeen da ngeen réeree mbir. bi ngeen xam mbir yéen Pikine jàmm gën. da ngeen réeree mbir da ngeen yaakaar na làmb ji fecc la ambiance non non. <laughs> tey nga wax ba géej waay non ñëpp la ñu boole <laughs> parce que booy dañu dal seen kaw. saa nekk fi tàmpu ko mu yeewu waay. déggoo li ma la wax de. gën. Ah. yéen ambiance moo ni daan seen ba dañuy ñëw fecc fecc. mi yuuxu fecc bi yuuxu bi yëpp mën nañ ko jaay affaire da waga yooyu noonu te xamoon nañu parcelle la gën a buujoo waa côté bee nee ne ñoom xam nañu parcelle mooy seen ville. saa dégg nga parcelle boo fa parcelle boo fa duggoon parcelle boo fa duggoon ki nga njëkk a dajal mbër lay doon te boo ko rombee doo xam ne mbër la mais bu bëree rek nga ne mbër maa ngi <laughs> wala déggoo ma. ah, ah xam naa ci leen de. xam naa ne combat bu naan neex lay nekk combat bi. ah baax na. non ñoom xam na li moom xam na li mu ko wax bu baax day bañ bañ lu. tey géejaay géejaay tey boo fa duggoon dugg Pikine dugg Diamaguène ay affaire da wat fii wat dégradé xam nga kii seen bopp tax ay fas yooyu noonu yaakaar loolu mooy làmb ubbi dox si pegg jàpp. saa loolu loolu jàpp ne loolooy làmb. làmb du làmb ji làmb daa njaboot façon nit bu nekk ngay gis. mais géejawaay ba loo xoolee da nga xam ne ñoom ay noble lañ. ñun ñuy ñëw làmb dañuy tef ba mu baax lu mu laaj dañ koy def ni ambiance dañuy yëngal yéen ak seen diggante ak yàlla yéen ñun bëri côté bee yëpp seen jabar yëpp parcelle lañ jógee dem fële. waaw kon xam ngeen ne waa parcelle ay noobul lañ. loolu bu leen ko bañ. <laughs> ah dégg nga caab bi ñun ñoo ko yor dañuy ñëw rek. di di jaar loolu noonu lu mu doon wax dañ ne côté bee tuuti rek. mais dama bëgg si diggante réparé ak tekki jël. Mm-hmm. <laughs> réparé yow loo waaj doyul. koro wax na la ko. dugal nga vocal si benn groupe ma kosa ko wax la ko nee naa la yow loo waaj ak doyul loo waaj xeeb ko. xam ne lu mu wax lu mu wax dafa tuq tekki dafa dugal dafa dugal benn tofam mu koy mbalit naan ko mbër bu yow nga waaj bu baax fekk moom wax jooj moom moo ko war a wax xam nga moom dafa jóge si defet yow da nga war a liggéey ba xottee xotteeku yow yaa ngi nax sa boobu de barki aruxa boo yaakaar ne fii nii nooy bees la non yaa ngi nax sa boobu. mais est ce que est ce que yaakaar nga ni Repaay dina dina dina dina dina dina toog ba xalaat ne teq dina ko daan gisoo ni mu toogee wax nee na parce que amul lu wax ak moom parce kii dafa bari wax sequma moom wax jëf rek laa seq ak moom. xamul waral loolu mbër bu jógee si defet day yaru mbër bu jógee si defet bu ñëwaatee. day yaru parce que moom tey li mu amalee supporter mooy fay leen ak ndam mais fi mu dal moo baaxul mu teex lu mu wax dëgg de moom ku ko naw la woon do teex da ko dafa yéene booy bi parce que booy bi jantal booy la tamit mais fi mu dal moo baaxul munoon na làmb fu gënoon nooy mais fii dafa dëgër këcc gaynde waaw ah, saa yi bul yaakaar day fooy doolam de yaa ngi nax sa bopp toogal foofu rek. nekkal foofu sa wet googu. gaa bi damaa gis damaa gis damaa gis ngeen ñëw ñàngal bàyyi ko wax ji muy wax ngeen taxaw di ko jéem a napp yooyu noonu xam di di di neewi di xam nga génnee ay biceps lan la. ah xam nga rek góor yàlla moom góor yàlla rek lay doon. da hmm. tam booy dem xare lu mu laaj da nga koy def. xëy na ñoom ñoo féete woo wax ji mais bu bis baa si kattanu yàlla dañuy jëf. mi fi ñu tal baaxul fi ñu tal ak a baax nooy nepp la def. tiix pataas la pataas. tiix daa nooy. nooy nepp <laughs> bu ñu ko jàppee si kattanu yàlla laa ma ji du yàgg boo xeful doo déggoo nee moom nee na moom du sax bi moo yéen parce que da leen bëgg a may sens dafa am ci lu ngeen jóge wala dafa am ci lu ngeen nekk mais mook Marley sax daloo neex. non mook Marley ñun seen ponkal lañ soxla. ñun yooyu lañ doon yoon ay Marley ay Thiely. yooyu lañ doon yoon waaw yooyu lañ doon voilà <laughs> a <laughs> si yoon dina may. dina may kuy googu <laughs> loolu de maa ngi xaw sax xam nga Tekki Jël ma wax la leen Tekki Jël supporteru Marley la woon hmm. maar la demul teq di dox di dox di dox ba fekk si leen ñoom parce que làmb noonu la rek bu ñu la mayee sans demoo da ngay xaar booy dañuy ñëw te bu ñëwee du leen téye dañuy avancé. noonu la la ku nekk da nga ñëw di root boo feesalee yow. waaw jeex na moo tax ne ñun dañoo war a root si géej waaye dem tuur parcelle. ren ñu caab bi ñun ñoo ko yor. ban caab ngeen yor. caab bi ñun war a jox cër kon lañ xam dañuy war a jox cër xam ngeen ndax ngeen war ñoo jox cër yéen da ngeen bëre daanu ñun ñu bëre daan jour woowu ah da ngeen bokkoon benn bésub làmb. ñoo bokk benn bés. déggoo ma la Teex dafa bëri teg après réparé ñëw bëri. te combat boobu ni mu demee la rek. man spécial bi laa bëri. waaw ah, déggoo ni mu demee la foofu rek. moo tere ñuy bëri ak yow. mais ah. suñu programme. waaw ah, làmb ci weexee lañ bëggoon lañ gën a bëgg booy weexee nga xam ne dañuy am coow. kon Teex amul coow. amul coow yow fu mu toll nii combat eh, Teex moom. teex wala ba fa am sax daanaka bii moo ko moo ko gën a neex. te yeneen ñuy ñëwaat ñëpp mbërëw yëpp duñu feeñ kii xëy feeñ chaque jour. doo feeñ. <laughs> bu ñu ñëwee arène nationale. Euh, si boo naka la waar. <laughs> tournoi bi xanaa moom proposé woon nañu ko teet. mu bokk ci tournoi waaw. la il promoteur bi moom lañ ko njëkkoon proposé ka yeneen am dañoo am plan de carrière tournoi bi su ñoo nekku ci. waaw fu mu toll xam nga mbëri des fois doo xool xaalis dangay ngay defar sa palan de carrière boo gisee amaa Baldé nag mu jël Siteu noonu la plan de carrière dafa am ci mbër. réparé waru woon jaar fii bu doon bëgg na defar carrière am waru woon jaar fii mënoon na xool feneen fu dul fii mais mi ngi nax boppam. ah foofu dañuy jaar ñun du tekk moo ñuy tee. <laughs> yow da ngay dugg géej waay da ngay dugg géej waay nga def micro territoire yow réparé la gën a xam bu baax. man réparé laa xam. gën a xam kuy teq. man laa réparé laa xam man sama mbër ni mu fooree. ak kii koñam teq dafa loolu ñoom. saa sama koñ amoo fa mafia. dañ fa am mafia bu rëy taxamu ko dëkk marché bu bees. ah gi <laughs> la bu leen indi mu mbambu gi rek attanoo leen ko. wuy kii waxuma la ak leneen rek ne waa marché bu bees jug marché njaay. yow fobeere sa fobeere bi rek nga nga woye. saa déggoo caat bi ñoo ko yor te bu ngeen xebu sax bu ngeen ñëw du ngeen dugg. da ngeen comprendre sax. dañuy tëj fële tëj fii. ngeen comprendre yéen après ngeen yu comprendre nga naan lii mun lii munul nekk saa yaa ngi foo. xam nga mbër tànk tànk daanu tànk daanoo ko ba jéggi du gëm ne daan ko. sa mbër bi lan laa koy conseil ko mu dem entraîner. <laughs> yow waaw baax na. merci <laughs> ñëw ay signature di. teg leen waaw merci waaw. waaw mu gisee nii dama découragé sax. waaw merci découragé <laughs> dama découragé. yow yaay découragé yow. réparé boo xoolee nga xam ne xale nga. yow la jox micro bi xam nga yaa téye micro mais yow yaay découragé mais mbër ma du découragé. musul découragé bii toog. saa yi teq maa ngi moom ñooy ci biir géew bi tànkam sama tànk yow si kaw ngay yéeg. waa déggoo. mun naa sax bañ a ñëw ci kaw ngay yéeg. mun naa sax bañ a ñëw. mais mbër bi lu warloon man xam nga lan la mu bëggal ma sama xol mu tuus jàppal ma gan gi daanal ma ko. ñun dañuy ambiance lamb bu amul ambiance neexul. xam nga man ba ma commencé dem teex combat teex yàggul. Mhm. dama doon fekk may dem voyage. mais de teex bu bëree ba pare du ma seenaan lamb dama koy wane ko booy noo ko daanee du ko laaj sax ku daan dama koy won ko booy noo ko daanee loolu rek laa bëgg a xam jeex na. kon xam nga ne man kooku dama kaa wóolu. bii yaa génneel sa bopp wala nga ñëw xëcc ko mu yow kon comprendre. combat bi passé combat bi passé. ma jël si biir téq dafa pare jéggi pare fu ma yóbboo daal yi teg ci mu kaay damaa sëgg gis téq daw di ma songi sa ma ne ko lan la mu ne ma làmb ji jeex na ma ne ko mënul leer bu doon wasaare làmb mi du xoolaat combat bi lii <laughs> laa xoolaatee xool ni gan gi daane téq gis ngeen nii lay demee ci jàmmaarloo Adama Kaagu damaa bëgg ñu dem seeti signature bi te dellusiwaat léegi acca na leen dem te ñoom. <laughs> réparé. réparé maa ngi lay ziar man nag wu woon ci façon bi quoi. dëgg la maa da ngay gis damay gis nga sourire mais dama gis rek ñëw nga aj kanam gi quoi. non damay bëre ku bëri wax quoi moo tax. <laughs> daa bëri wax. <laughs> lu tax nga ne daa wax. daa bëri wax rek yaa am nga wax jur warul mën a. da ngaa dégg wax. ginnaaw bañ sant yàlla julli sant bi xam nga di sant suñu ñaar waajur. Mm-hmm. am jërëjëf Serigne Touba. jërëjëf Serigne Touba jërëjëf Serigne Touba. jaroo rek moom Cheikh Ibrahima Fall jërëjëf Serigne Sall sama yaakaar teeg jërëjëf di Serigne sama yaakaar teegal ak xam nga di nuyu mbëri fi nekk yëpp di leen siyaar di jokk nekk sa wàccuwaay di nuyu promoteur di nuyu suñu père xam nga di aussi tamit grand promoteur di nuyu samay entraîneur xam sama staff yëpp maa nuyu di leen siyaar di nuyu sama maam quoi sa maam teq hmm. mi lu ko def sama maam sama maam ki jamono dégool la <laughs> dégool tubaab bu yàgg ba hmm. jamonoy déggoon la quoi. réparé li ngay wax doy na waat mais mais yow kii da nga ko njëkk a accusé nee nga dafa bari wax mm. ñu ne déet na waa waat sa maam la waxam ju bëri daa yegg si ci yow wala daf laa wax loola naqari wala. non kii kii mënu ma wax lu ma naqari man sportif la lan moo la xamal bëri wax. non déggoo ma de wax da ngay bàyyi ba mu jot nga wax su jotul waroo wax. lu mu wax moom. non kii amul amul fit bu taxaw war a wax ci man. amu ko xam nga moo tax Babacar tey. su ma la déggee ngay wax ak keneen di wax yenn wax yi. ma xam ma xam ni nga mel. suñu waree wax du ma la bàyyi nga wax si man. Hmm. yow def. kii li may def. waaw arbitre mu jàpp du ma ko daan. kii neex naa du ma daan. kii nii. kii sama maam la. kii kama mag kaka mag kaka magaa sax moo ko mag. moom teq mi. mooy yow kii kii di maam nga nag kii jamono déggoo la laa la wax. yow ñaata combat nga am arrêté. maa ngi cinq combat. ñaata victoire. quatre victoire benn défaite. benn défaite rek nga am. Hmm. nga dugg si man est-ce que daa mel 2018 dimanche 2018 xam nga daal 2000. xam nga waaw réew la daal. la daal. nga ne sa maam la. non non le le 6 le 6 août 2017. après waaw 2017 waaw le allah xale nga de yaa ci 3 mm. ans de carrière. Mm, ci laa dugg quoi. mais sa waay daal wax ji nga bëgg dindi daal. kii nii. <laughs> yaa yaa la bëri sutura daal. teq teq maa ngi lay ziar teq sa waay teel naa dal sa kaw de. auzu billaahi mina sheytaani rajiim bismillaahi rahmaani rahiim wala xawla wala xuwwata illaa billaahi al-aliyyi al-aziim ma sant yàlla julli ci yonent di maa ngi sant suma ñaari waajur di sant suma yaay di sant suma yaay di sant suma papa di sant suma di sant axlu làmb di sant promoteur bi taxawal làmb ji waa di sant sunuy coach su ñëpp ñuy sonn ci ñun di nuyu Aliou Téré bi ma àndal Ardo ñaari yaar numéro 2 waa non kii day tiit di wax. daa waaw di sant sama sëriñ Mawlana Cheikh Ibrahim di wax marhaban bikum Cheikh Ibrahim xam nga man day tiit di kii day tiit ba kii pareegul sa ci ay daanu. pareegul ci daan non non pareegul. <laughs> kii des non non day mais day tiit gis nga mbër buy tiit doo gaaw a yeewee. xam nga kii bu tey na man damay wax te musu wax ci moom kii bàjjanam sama koñ la dëkk parcelle. musu ñu dajante maa ngi moom parcelle. ubbi naa salle de sa waay ma mafia bi koy diriger man sama samay fils lañ sa waay bu ko neexee mu ne man maamam laa bu ko neexee mu ne papam laa mais dinaa la war rakiste la ménagé fobeer saale waale yaale waale ba nga naan papa téex baal ma gis ngeen noonu lay demee dem nañu seetaan signature bi ba ñëw mais signature la bu neex la daanaka na yeneen mbër yoo xamante ne nekkoon nañ fa waaye lii nii sax mujj naa fàttali loolu ko def doon nañ présenté waaye daanaka ñoom neexal nañu signature bi ndax teex jàmbaar la boo ko gisee dafa xaw dafa xaw a xaw daal neexal na signature bi ànd na fa ki nga xamante ne mooy Repa tamit bàyyi benn yoon ginnaaw loolu noonu ci combat bi combat nekk na combat déclenchement nekk na combat boo xamante ne combat bu mën a génneewaat la ci làmb. waaw xam nga ba ñu duggaat ci combat bi ni génn nii loolu la ñu waxoon. Mhm. bon saa waay dem buur wàññi poids bi dafa campagne bu baax xam nga wàññi poids bi ak doole sax ba ñëw nga xamante ne boo waaye dina mën a am comme adversaire yu mel ni genre réparé yi nii. nga xam ne ñoom ay nooy neex na nga ñëw këlëm këlëmtikoo leen jàll. xam nga léegi nag ñu jógaat si combat boobu noonu. ñu mm-hmm. dalaa si réparé. réparé moom nee na ñun amuñu doole benn ñaar ay mag lañ te làmb foog naa mag du ko def mag yëpp dem nañu retraite su ma juumul. Mm-hmm. làmb xale koy def mais réparé li ma lay conseil mooy yow sa booy di lam la di lapi lapi di wax ni téye leen xam ne am nga combat ne leen ñoom ñi yem yow nga xam ne yow sa bopp am nga combat yow laay waxal réparé ni réparé dafa pare ndax ndax ndax. Euh, ak mais teewul da ciy xam nga ne pare na. parewul réparé parewul ñun xam nañ lépp nu mu demee du ñu ay ngaag see làmb réparé dafa ñëw noonu déggoo lu ma tege sànq nee naa dafa naan ay suróom booy di ko jox hamburger muy koos yaakaar moom mi ngi ci dara fekk daa juum nekku ci dara réparé parewul la te bu sumee ko làmb ji di nga xam ne yow mii carrément réparé parewul ñun xam nañ lépp nu mu demee. réparé mosul ñëw làmb si meeku gars yi naan parewul lamb ji dafa nekk lamb boo xam ñun ñoo ko bëgg mbër mi bëggu ko daa am si luñ jóge am fu ñu teg si lu bët te du lii moo ñuy téye. c'est loolu moo tax na ngeen war a yaru. yaru si li ngeen jógee. moo tax ngeen war a yaru yow yaay wax nee naa mais Réparé wax. déggoo ma face à face yi ñëwaat ci mus a wax. dañuy wax ba génn baal boogaal. déggoo li nga wax nee nga dañoo tàmm dañuy ambiance. yéen pareegu leen si ay daanu sax. ñun dañuy ambiance non SRS. yéen pareegu leen si ay daanu. loolu ay waxam la. teex da ngeen di daan rek teex ñëw jël leen daan leen. jàll dem seen yoon. teexe déggoo tegu xoolu leen sax ak yu ne prix ñun ñooy jëli tegu xoolu leen taxaw rek leen lañ koy ñaan bu boobaa nga taxaw teg Serigne Babacar Sy ñu ngi Wassare TV ah teg wala bu boobaa na nga taxaw boo taxawee doo doy Serigne Babacar Sy ma yaakaar teg ak marale bu ñu bëre woon billaay wala nga simil simil teq taal. waaw foofu nañ ci génn. maanaam maanaam waaj combat mais déggoo li ma la déggoo ma sax instant yi repas dana dimbali mais am na boo yoo xam dañuy nga xaatal lu mel ni Pape Thiam Junior waxuma la am la ma ay maare maare dugg na fa suku suku laa bi d'accord fa daal vidéo yaa ngi fi maare laa bi d'accord xanaa <laughs> ah, kon yow fii dëkkul paase xanaa non parce que dëkk mais nañ ñëw ci diggante kii ah, xamante mooy jiitu ak réparé parce que fi mu toll nii bu ngeen bëggee jël kii yóbbu ko fii jël yóbbu ko fii te yéen ñaa jaamaaloo bu non man dama lu ma metti man dama lu ma metti man dama bëggoon téex di jox xanaa déggoo lu mu wax booy bi di liggéey di liggéey ba dab si ko léegi kon lan mooy problème bi. waaw mais léegi da ngeen prouvé fii ba noppi. bu ngeen prouvé fii ba noppi. donc wax waxi rek. avance avance dafa mel ni avance maanaam ngeen jël avance réparé ngeen jël. <laughs> waaye dërëm bi génnul gaal gi de. dégg nga mu ne. dégg nga bu boobaa day wax si yéen. Marley léegi da ngeen xëcc ay baax yi bu boobaa. Marley combat boobu noonu la mbaxane la ci. force day indi booy. Marley daan ko mu toog di jooy. Marley daa ko yaa ngi woon mu jël place. bàyyi ma nga am ay Marley bàyyi ko. yaa ngi woon. yow bàyyi. parcelle amul amul. foofu day teg suñu loxo Pikine Géejawaay amul amul mbër bu yoon. musul am ba mbapat loolu ma la laaj ba ba xam laa la wax. boo demee nga ça sa waay non non Mara Baye ba xam seen ay ma xool lu wax. te ñu ñoo doon dugg Géejawaay dafa jël indi parcelle. mais amul mbër bu jógee côté bee ñëw jël fi ab yóbbu am. ndax ma taw li ma la wax ma ma ma doon mu génn saako yi. a waa parcelle. waa parcelle bu demee na topp enquête boobu noonu. déglu sama numéro bu amul bu demee amul. ah moom déggul yow li mu la wax yow wax ma ban mbër moo mos a ñëw dugg parcelle génn yóbbu affaire yi amul. amul. musul am. parcelle bi yëpp géej waat. mbëri fa doon ñëw doon sonal mbëru parcelle yi. saa ñu dañoo dund làmb. <laughs> mbëri fa doon ñëw doon sonal mbëru parcelle mbëru séeréer yi la woon. te buñ mosaan ñëw Malick Matraise la ñuy woo. bu demoon ba jaaxal gaay Garga Mbossé wala Malick Matraise ñoo ñëw tër gaay yëpp jël affaire yi musul am kenn mosu faa génne nag wala ay ceebe gi yóbbu. Ah, waa waa ni waa passé ni yóbbuñu waa génne waa xëy na yow yaa boo nekkoon ko si wax sax. xam nga lan moo problème si porté. sa ñu koñe mooy que ni Balla Gaye la ñuy yabee fu ñu mën a yabee. amul feneen fu ñu mën a yabee. Ah, amul feneen fu ñu mën a yabee. amul fenn foo leen ñu mën a yebee fu dul foofu. yéen kooku moo tax ngeen di baax. tey eh loolu nga fa parcelle koo fa tiim ñu ko la ñoo ni mu ne la Modou Lo. non Modou Lo affaire la Modou Lo moo gën a ndaw parcelle. waaw Modou Lo moo gën a tuuti parcelle. mais est-ce que xam ngeen ne xam ngeen ne xale yi nii di bëre tey kii di téq jël kii nga xamante ne mooy réparé ci ñooñu la ñuy xool parce que ñooñu jom fulaak fay donc la ñuy la ñuy def. téq jël ma wax la leen bu ñu tegoon sa ak ceeb ku nekk lekk benn pepp ñu ne téq day daan di daan ba biir géej waay waa géej waay kenn du lekk benn pepp day daan ñëpp saaku ceeb laa ñu teg ko buntu farmasi ñu jublu seen bopp de. kenn du saa day réeré di wax. saa yi ñooy sàngu mbër. ne ko mu entraîné que xale la. parce que yow say wax yëpp demal nga entraîné ci dégg. Mm. Tekk dafa nekkul ci di sol di sol ay. mais est-ce que nekkul dafa hivernal loolu moo tax mi ngi naan hivernal. kon kii xamul teex. dégg nga ne teex mosul nekk si état kii xamul teex. lii moom bëri na yow sax bëri ñaata combat la bëri. xam nga à cause Covid 19 bëri bëri dañoo laissé wu bàyyi. bàyyi su combat seen nekk di entraîné. xam <laughs> nga taxawaay sax boo ko. yow déggoo li ma la wax de saa waay sa mbër ñaata combat la Eumeu Sène combat la war na ko fi. te yow yaa ngi ne. teeku lu mu wax teeku mi ngi ne moom benn tefet la am. te réparé dina ko yóbbu vaar léegi. dégg lu mu la wax. amul benn tefet amul benn tefet. <laughs> réparé wala ko woote. dégg lu mu la wax mu la wax ci jàll la def nii. Ah, ay baara teeku ne six combat la am benn defet la ci am. yow seen réparé na amoo benn tefet. yow seen combat nga bëgg maa yab. man Pape Maurice laa leen. benn moo nekk seen damay soog a commencé man damay soog a commencé. benn boobu nag mooy moo tax du ma mën a kon doo gis pee naa jàppal dos bi. xanaa. man de du ko def. loolu ko loolu ku ku waaye de rek a koy def gis nga naan daa ma def ci bi. pee boobu day toroore. Ah. <laughs> pee boobu day toroore. kii du melas sax. kii du melas. saa yow da nga def Aliou nañuy laaj. yow ba am nga may babe Aliou. waxi sulu la mu jeex. da nga def tekki jël mais waxi sulu la mu jeex. Mamour Lo mooy tekki waat. yow leer na ne yow keroog. ci lamb ji ci lu leer laa la wax. saa yow dafa làng. yaa Mor Lo mooy déclenché nga texital léegi waxi sulu la naa def Pape Mor Lo yow Pape Mor Lo ñun suñu yaay la moo xam ma xamal la loolu man kenn bëre naa lay wax kenn bëre doo yem déglu li mu wax de ni mu lay daane la wax loolu laa wax waaw fii xanaa déglu mu ko wax nee naa ko man nee naa ko man su ma neexoon damay dem sama yoon fekk bu bëre ba dama koy naan booy woo ko ne ko noo ko daane du ma laaj sakku daan dégg nga réparé laa mu ñu bëre boo xool plus part yëpp a ngi top 5 Hmm, yow sax yow. tekki combat yi bëri dem de. gaa ngay jooy ba demul ku gën a fort rek. ku gën a fort rek. gën a fort rek. keroog lamba ja jël bi fa am ko la mu ne ca baxal. six combat laa la yëpp. keroog képp moo fa gën a jël te ba léegi top 5 mu ngi top 5. yow nag top 5. yow boo boo amul sa bopp. foofu yow top 5 <laughs> yow da baax. Dakar ñun xam nañ ñu mënee xam nañ ay bërëm xam nañ ñu mënee bu baax dañ koo xam te loolu yëngalul téex bi xanaa déggoon ma tollu ko fii. taxaw leen ñu bëre rek téex bi dictionnaire la. taxaw leen ñu bëre li ci bopp bi moo. buñ sañoon lamb dañ koy cons. déggoon ma la léegi cons lamb bëgguñu sax muy lii. mais lamb ji nag loolu moo leen di ndax loolu leen loolu leen yéen doo leen cons lamb booy. loolu leen bëgg yéen ay français ngeen doo leen xeex. ah déggoo ma la seetaan nañu sa que noonu lay demee ci jàmmaarloo soo amoon kàddu yu mujj lan ngay wax ak loo ñuy waxee supporter yi ñu waajee ko làmb ji. waaw supporter yi moom ay ñun ñoo ñu ñoo ñu gën a sonn sax comme dab parce que temps yëpp wax dëgg yàlla ñu ngi def ay tournage yoo xamante ne xam nga ñu ngi waaj suñu combat bon génnoon nañ fi dem fi voyage yi ndaw pour waajal combat bi ñun moom teex lu ñu koy wax moom bëriwul moom xam na bu baax moom li koy xaar waaw xam na bu baax li koy xaar yow yaa ma gën a xam mbër yow si li nga nekkoon nekk ci rek bul teggi foofu baax na tegal sa foofu noonu dañuy fobeere rek sa menace saala yàlla waale rang ñuy dox jëli ndam jeex na. boo mën kàddu yu mujj looy wax waa géej waaye ne moo réparé. waaw ah, dañuy yóbbante teex tamit. ah dañuy woowaat waa bi yëpp parce que tamit koñ boo xam ne trois champions ñoo fa nekk Marley Pape Thiam 2 réparé lépp li ay de boo ko boolee mu jox la 6 ñu nekk si benn koñ muy Alba. Sélé bi Mbalang ñoo ñëpp yow mooy la. mooy kii la yow bëgg a wax. <laughs> réparé la la bëgg a wax. déggul lu bëgg ngay dégg. déggul mu la wax de. ma ne la bëgg a wax xam ne dafa am ñetti champion. waaw ñëpp maar la jiite leen te loo si xamul lépp ay deux la boo ko boolee da lay jox six. Pape réparé deux. deuxième ah. défaite am. mu nekk si benn koñ. moo tax ñu bëgg a woowaat waa géejawaay bi yëpp ñëw dugal si seen loxo. kenn du ñëw. ku si mel ni Pape Sall dañ koy woo. di woowaat ñëpp. loolu woo yi tamit waaw ñu ñëw di si jàpp parce que xam nga rek làmb dafa nekk foo xam dafa soxla évaluation. parce mbër li koy topp. moo waral promoteur bi di ko seeti ak lu mel ni site internet yëpp. Mm-hmm. parce que tey ñu ngi wasaare làmb. bii passé am na ñu fa ñëwoon seet si Marley mhm. ñeneen ak ñeneen mais lii dañ koy rafetlu bu baax di leen ñaanal tamit li ngeen bëgg si làmb yaa leen ko suñu borom defar amiin teq jël leen laa ko yóbbante na dëggal boppam ne na teq jël la mais wàqi sulli bu ñu fa jógee wàqi sulli lay tuddee boppam baax da ngeen di changer tur bi dañuy changer tur bi wàqi sulli parce que après da ngeen jël booba ngeen jël seen deuxième défaite teq mbër musul dox si koom te du mu sa am si àdduna préparé boo xoolee ay lamb moom ñëpp daa dox. dégg nga teex mbër musul dox si kawam préparé doxul. maa bu la. Eh, maa da nga déggoo li ma la bu ñu dajee day neex. xëfee xëfi mooy booy saa yow. bu ñu dajee day neex yow bu xefu boo jëlul ku mbëkk ngay jël. bu ñu defal ba yow ma wax ah boo mbëkkee ñàkk boo bëgg <laughs> ngeen mbëkk ñu ñooy bi taa xamul ci lamb gis ni lañ koy faral di defee chaque jour woo ñi nga xamante ni ñoo yëg mbër bi mooy ki nga xamante ni moo koy toggoo ci mukaay wala ki nga xamante moo koy tëggal dafa moom jàmmaarloo moo wax li nekk ci mbër bi wax combat bi mu ngi koy waajee làmb dafa baaxoo coow làmb daal dafa baaxoo coow ba lii da ciy baax di leen sant di leen gërëm di leen wax ba beneen yoon incha allah ak jàmmaarloo kontaan naa ci yéen bu baax a baax. jërëjëf